yaatal ak yàkkali wala feeñal liggéey bi nga xam ne sëriñ Touba liggéey na ko dama waxoon ne inni uxaatibu nasara turon fi ardihim joojee nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mourtada doon wane loola Serigne Mamoor gis ne ngir mu mën a dund sax dañuy fab yitte yëpp jëmale ko ci taxawutu tànk yi fondation Cheikh Ahmadou Bamba ñu gën ko ràññee ci FONCAB di kuréel gu ëmb ci biiram lu tollook ñeent fukk ak ñett ci ay daayira fare si Nord America gox yi fare foofu si États-Unis ak Canada ñu ngi ko sos si atum 2015 si njiitalu Serigne Mamor Mbacke ibn Serigne Mourtada li ko tax a jóg bokk na si dajale mbooleem taalibe murid di nekk foofee ci Amérique du Nord ngir yembal leen ca nekkin foofu waaye tamit fexe ba lawal jàngale Cheikh Ahmadou Bamba si àdduna bi wërngël këpp. mission wu fondation bi. mooy dajale. mboolem taalibe Serigne Touba yi nga xam ni ñu ngi ci biir Amérique ak Canada. loola bu ngeen xoolee fi ma romb nii ba ni bi ñu koy tàmbali 20 états la ñu tey ñu ngi ci 43 kon mel na ni mission boobu bu ñu ko atteindreul complètement aussi def nañ ci ay jéego yu am solo léegi nag dañoo war a jëriñ mbooloo dajaloo bi dafa war a ni ko daan waxee rek fondation bi bu intégré daayira yi ba pare aussi nag daf leen a war a dépasser à tout point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif kon loola aussi yàlla def na taux d'adhésion bi jëf ji wane na ni nit ñi daje nañu ci foofa fondation bi bu dellu siwaatee ci taxawaayam am gisin bu weer waaye tamit li ko tax a jóg bokk na si dajali mbooleem talibe murid yi si Amérique du Nord jaare ko si daayira yi ngir seen nekkin gën a yemb di ko nag jaare si wàllu dimbalante yi ba képp kuy doomu réew mi rawat na nga doon talibe murid nekk foofu doo am benn jaaxle si wàllu social di gën a xiirtal tamit mbokk talibe yi ñu gën a jaaju am passeef si liggéeyub Serigne tubaab bi Cheikhul Khadim ni mu leen ko jàngale si téere yi naka noone taxawaay bi tënk nañ ko si ñett kenn yu am solo benn bi bokk na si fexe ba taxawal ay kërub islaam yu ñu duppee kër Serigne Touba waaye tamit fexe ba lawal jàngale Serigne Touba Cheikh Ahmadoul Khadim jaare ko ci xasida yi ak dégle yi ñetteel bi mooy di dimbalante seen biir ak jàppalante ni mu waree si diggante doomu aadama yi ak it ni ko diine islam santaane fondation Cheikh Ahmadoul Khadim Nord America amal ay réalisation yu am solo ginnaaw bi ñu ko créé ci atum 2015 bokk na ci hadiyatu rahma yi muy faral di jébbal ci atum 2018 waaye tamit firi xasida yi ci làkkub anglais yu si mel ni jawharu nafis nahju tazawudu shixaar mool ay téere ni leen ko sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des mourides santoon di joxe tamit ay don yu jëm si wàllu paj mi bokk na si conteneur bu ñu indi Touba ak Daaru Moxti di jàppale daara yi waaye tamit bokk na si seen ay réalisation képp kuy ressortissant sénégalais jamono yi mbas mi ñu gis ni gat nekk ñu metti woon na loolu kom bi wàññeeku ñu demoon jàppale la taxawal tamit comité sutura kuréel yi li ko tax a jóg mooy dimbali ñi nga xamante ni ñoo ko yellool jàppale néew gi doole gi ci koor gi waaye tamit tabaxal leen yenn jumtukaay yi ngir ñu mën a suturlu lu si mel ni ay toilette ak yéen yi itteewoo fexe tamit ba yembal leen juróom-ñetti kër Serigne Touba li lépp di ay réalisation yu fondation bi amal depuis bi ñu ko créé ba léegi ci atum 2015. Euh, fii Sénégal euh, comme ni ñooy bras armé Foncab euh, États-Unis fi fii Sénégal sànq sëñ Mamadou dëgg tudd na ko activité bi njëkk a def fii mooy conteneur yoo xam ne dafa jóge Euh, matériel médicaux euh, def lépp lu jëm ci ay soins médicaux matériel médicaux euh, noo ko xalaatee rek noonu la amee ci wàllu santé indil ko Matlaboul hôpital Matlaboul Fawzeyni ba noppi tamit indi ko Daaru Musi am na tamit yeneen action yoo xam ne def nañ ko si biir yoo xam ne tudd nañ ko mooy jëm ci soxna yi léegi beneen bi tamit mooy ci wàllu kër Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la leeral xam nga foofu li ñu ay ay ay centre d'éducation communautaire la yoo xam ne dafay contribuer comme nekk tubaab di waxee rayonnement Euh, islam euh, sunna ak enseignement Serigne tubaa waaye xam ne enseignement Serigne Touba euh, Touba la tàmbale balaa balaa balaa mu dem fenn ba nga xam léegi ni nga xam ne noonu lañ ko defee fii Touba noonu lañ jàpp noonu lañ ko defee fële fële Amérique waaye dañ koy adapté ndax ña nga xam ne ñoom lañ koy defal ay nit la yoo xam ne foofu lañ dëkk yàgg fa ba noppi juddoo foofu objectif bi mooy dañuy am ay ay citoyens yoo xam ne dañuy nekk Amérique juddoo fa màggee fa lépp loo xam ne Amérique ku fa juddoo màggee fa war na ko am si sa ak ci xam ak yëpp boole ci am yar euh, ak ak li ñuy wax xam-xam ak tarbiya xam ne ku ko xool euh, bu dee wàllu àdduna kenn du ko ci raw ñu régler ce problème bi nga xam ne ku fa masaana wàcc liggéey Mbàkke Cuun mi moo daan jël téléphone am fu ne mu woote fa ñuy ket di yalwaan di fa téye néew ba pendant deux semaines trois semaines un mois dans les tey ñu dem ba bu arrivé tey ci semaine bi des na ko toppatoo des na ko indi noppal bokki kooka yi nekk ci biir réew mi waaye noppal aussi bokki bi yi nekk ci biti kon loolu prouesse la boo xam ni fondation bi fexe na ba am ko muy hadiyatu rahma bari na ci lu ñu indi Sénégal bari na ci lu ñu lu ñu lu yoo xam ne def nañu ay témoignages muy nekk yoo xam ne comité sociale bi Mbàkke Cuun jiite ñoom ñoo nekk artisan wu Hadiyatu Rahma ak jëwrin ak ñi nga xam ne ñoo ko seq kon fondation bi aussi foofu wane fa xarañ ak réponse concrète ci situation boo xam ni ñu fa masa ne dund nañ ko te xamuñu woon fan la ñuy jaar ba loolu mën a saafaru léegi nag euh, c'est derrière nous c'est un acquis ñu ñëw léegi aussi ci li nga xam ni moom mooy njàng mi muy éducation comme ni ñu ko waxee woon njàng moom aussi gis nañ ni suñu doom ya fa nekk naa le système américain mu modèle leen li nga mën a sëq ak ñoom ba ñu gëm la wala dara mooy mbind ñu indil leen lii nga xam ni modèle la boo xam ni na ko Sëriñ baa waxee woon rek bu ñu demee ci àdduna dañuy dem ba génération bu ne day jàpp ni ñoom ñoo taxoon man ma ñëw parce que mooy indi ay solution ci seeni préoccupation te la ñu móol téere yi nga xam ne moom la sëriñ bi taalif mu jëm ci njàng rawatina ci xale yi ñu def ko en anglais nga xam ne yow amoo loo leen di expliquer boo leen ko joxee ñu liir ko ñoom dañ koy dañ dañ koy confronté ak seeni xalaat ak ak seen ni ñuy doxee ak loolu lépp te su boobaa it xam nañ ni dafay nekk une réponse concrète ci li nga xam ni moom la ñuy dund loolu aussi nekk loo xam ni euh, beneen aspect la mu jëm ci wàllu éducation waaye fondation bi aussi ñëw na ci li nga xam ni moom mooy ndimmal li ñuy jàpp li ñuy defal waa Sénégal parce que ñoo nga foofa mais ñoo ngi fii parce que fii la ñu nekk fii mooy suñuy racine fii mooy suñu lépp ñoom ñi nag am nañu ay gisin ngir seen ëllëg gën a lawal liggéey bi baral ko naal yooyu bokk na si nu jàppale émigré yi nga xamante ni ñi ngi dundu foofu ci Amérique du Nord di dund ay jafe-jafe yu tar waaye tamit programme bi nga xamante ni dañuy lawal jàngaleeb alquran si kër Serigne Touba yi ngir tout tànk yi mën a jàng ngir seen ëllëg gën a renforcer yow leadership programme développé ay programme si wàllu colonie de vacances ànd si ak université Cheikh Ahmadou Bamba gëna tamit taxawu jigéen ñi si seen ay naal ñoom it naal yi ñuy amal si biir fondation bi naka dimanche yem ak ñaari fan si weeru octobre atum 2022 fondation bi ay membre am ñëwoon nañu ziar si Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides jébbal ko addiya lu tolloog juróom benn fukki million yu tegal juróom-ñeent ak téeméer junni sëriñ bi gënaat leen soññi kontaan loolu si taxawaay bi ak pas-pas bi fas yéene tamit yokk ñaan yi ngir nag ñu gën a wéy liggéeyal Serigne Touba.